ñi nga xam ne ñoo ko seq ñu réussir seen vie de couple et puis dund ko pleinement avec euh, beaucoup de plaisir. tey sa relation personnellement ak Djibril euh, c'est des relations fraternelles. Euh, te li ko jiitu mooy des relation boobu dañu doon jokkoo waaye ñu dem ba ànd bi dëgër yeneen ci jàmm bi yaatu tamit ku ne xam ko ci sa morom moo tax aujourd'hui c'est c'est la famille qui se retrouve. tey sëy bi takk nañ ko nag. Mm-hmm. ngay ngay màcc ñoom. Mm-hmm. tey jii nga leen jox waaw di leen euh, wax ni rek euh, suma yaay da daan wax euh, am na fàtte naa terme bi sax xanaa balaa mu naan xaw ma lan foog mu ni nuuf nuuf maanaam lépp loo gis rek bala muy neex rek dina am ci ay épreuve yu bare yooyu jaar donc nag loolu dafa jar a bàyyi xel xam ni àdduna tamit lépp rek euh, tout n'est pas rose mm-hmm. ah lépp du suukar ànd neex na lool takk jabar ñu joxante ki yeeg yooyu yëpp vraiment ah nuit de noces yeeg yi ci topp ak yooyu photo yu nice yeeg yëpp waaye nag la vraie réalité mooy li nga xam ne moo nekk ca suuf mooy mooy la vraie vie mooy la réalité donc couple mm-hmm. donc dana am des hauts et des bas waaye lépp lu ci mën a doon rek li am solo mooy ngeen fexe ba déggoo ci sutura ak ci teraanga jàppante te muy dëgg ci yéen ba seytaane bañ a fekk seen seen waxtaan hmm. ba bañ di ko eggee yeneen i doomu aadama ñu ci am euh, luñ ci wax hmm. yal na leen yàlla musal daal hmm. ah, mais xam naa ni nag moom ànd boobu dana war a mën a neex parce que mbëggeel rek laa fi gis ñaar ko séq rek muy góor ak jigéen daf ngaa wax ku jigéen ki loo waaw euh, ci waxtaan la ñu dëkk ñooñu samay samay rakk la Ah, dañuy waxtaan yenn saa man je de la famille yu bare wax dëgg yàlla ñoo koy dundandoo ensemble parce que wax dëgg yàlla Jibril mi ma yàlla booleel doon na ku am respect te ku gëm liggéey ku bëgg liggéey tamit wax dëgg yàlla te fu ma jox cër moo tax man lépp lu ma xalaat rek ndeysaan damay daal di woo Ousmane Ka sama batteur ni ko grand fan nga nekk aci on se retour xaal ma woo Bril ñu jéem ko xeeb et ñu daal di daje commencé tàmbali liggéey bi donc c' est vraiment dans un esprit extraordinaire que yàlla boole na di ñaan yàlla mu sax. Abdou Dji tamit fu mu nekk macha allah ñoo ngi euh, di waajal. di waajalaat sax laay wax ndax saa yoo leen ñu fekkee rek ñoom ngi ca waaroo incha allah fii ci fan rek. du weesu fukki fan daan leen may lu bees ngir yokk doole tamit fi réew mi toll parce que ku ne xam na suñu posture ci au sein de notre société mm-hmm. te loolu euh, dañ koy jëmmal dañ koy téye fukki loxo xam ki nu doon ci askan wi euh, war a dëkk nag doon ci seetu ba kenn ku ku ci nekk ci ndaw yi rek saa yu nu xoolee rek à travers ñun mu mën a gis boppam moo tax kon incha allah fii ak temps dinaa leen génnewaatal lu bees dooleel taxawaay bi ñi gars yi war a taxawee ci affaire législative yeeg yooyu parce que yooyu yëpp c'est des thèmes de société loin de la politique ça n'a rien man bu ma yëkkatee wax ci bien que politique dafa bokk ci mi nga xam ne mooy sunu sunu sunu sunu sunu euh, quotidien mais loolu wareefu artiste la artiste lépp lu jóg ci réew mi rek dañu am ngir teg ci sunu kàddu ngir am ngir euh, ngir euh, joxe ci sunu xalaat ngir mën a redresser la barrière à ce que le Sénégal gagne. kon daal kon daal su ne nii daal jàpp nañ ni élection yi di ñëw comme ni ñu ko defoon ci présidentielle yi di nga ko defaat ci législative yi. incha allah incha allah mais. waaw Pastef. oui parce que nag euh, nag bu nu waxalee yàlla nag xam ne tey jëmm ji nga xam ni mooy Ousmane ak Diomaye euh, yàlla am na fu ñu boole tamit ah ngir bañ a guddal ci kàddu googu donc tamit ñoom lépp lu ñu yëkkati rek man dama am wàll pour ñëw prêter main forte à cela parce que xam naa ni li ñu yëkkati moom la askan wi di xaar li ñu yëkkati mooy Sénégal bu réussir Sénégal bu tegu ci dëgg ci yoon Sénégal bi nga xam ni ku nekk day fàtte sa ànd ku nekk day fàtte sa ànd ñëw ñu àndandoo bu ko defee yàlla sax da ciy ànd. Mm-hmm. donc yàlla yàlla xeeb. mais Abdou question bi question bi fa nga may ma ko. Mm-hmm. Euh, kii di Wally Ballago Seck dañoo gis ne. Mm-hmm. Euh, fan yii dafa jël li nga xam ne moo di. xale yi ñoo nekk ci suuf muy def ak ñoom ay vitrine yu doy waar. Mhm. Abdou Guité est-ce que mën nañoo xaar ni mu def ak vitrine ki nga xam ne moo di Wally Ballago Seck. Mhm. Wally euh, ak euh, keneen ku mu mën a doon ci artiste Sénégal yi rek honneur lay doon plaisir lay doon euh, ndax chaque jour chaque rencontre chaque partage et une expérience est une richesse de plus. Mhm. donc de tout cœur incha allahu rabbi ñaan naa yàlla loolu ngay mëbët mu mu yaatu lool. ba nga xam ni daan ko mën a def defaat ko defaat ko defaat lu waral teewaay bi rek dañu xaw a tardé tuuti. ci loxo Seydou kontaan na lool taalibe Baay Ñas yi nga xam ne ñoo ñëwoon ñëw ci jumaa ji ci ndigalu Baay Ñas kon kontaan na ba bis bi ba meer mukk kontaan na lool jërëjëf loolu la amoon lu muy wax jërëjëf ah jërëjëf. moom sëñ bi ah papay maître Seydou mooy jël kàddu ñun ñëpp ñu bëgg ngeen ko nee na mi ngi nuyu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 war na am 40 41 ans 42 ans. moom doom ñu mu ko tuddee. nee na jàppul Adi waaye am na sikkim. nee mu ngi doon taxaw. kon boo xam nga ne yàgg na. ba tey. bu ñu dajee mu dem Tamba wala mu ñëw Dakar.